jërëjëf euh, mbokk yi nga xam ne yéen ñiy top ba tey fii ci résidence Seexuna Ahmadul Xadim bi nekk ci jumaa ji ci guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne tey jii day mel na rek bitiw euh, bis ba delluwaat na cosaanam ndax xam ngeen ne ñu ngi ci guddig altene yendu dimanche ba sedde altine ci ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoon jamono ci atum at mi ñu nekk nag nga xamante ne bii ci lañ toll di 1446 eh, ci gàddaay gi. ñu toog dend ak sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad eh, ci ndigalul sëriñ Saliou waaye ci teewaayu Cheikh Mamadou Mountakha nga xam ne mi ngi ci biir kër gi ànd ak ñun gàmmu gi ci lañ toogee nag ak kenn koo xam ne bu ngeen gisee jataayam miin ngeen ko mu baaxoo génn ci gàmmu gi di ànd ak sëriñ Amsatu ci eh, fi ñuy jàngee ànd ko ak waa daayira Hizbut Tarqiyyah waaye miineen ko ak yeneen jetaay yoo xam ne waxtu sëriñ am sa wootee ma nga ca wetam ba tey sax bokk na ci kóllëre gi jumaa jee nga xam ne moo nekk ci maqarul asna te tañ bokk fa dëkk ñoom ñaar mooy ki nga xam ne mooy imaam ji di sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke yàlla na yàlla guddal seen fan mu doon ak monsieur le maire Abdoul Ahad moom it dana ci yëkkati ay kàddu waaye sëriñ bi ñëw nga fekk si sëriñ Amsatou ci guddi goo xam ne sëriñ seen maam moo santaane ci ne nañ koy dundal ba noppi nag wax nañ koy dundale tasimuhu bi sunnati yaakaar naa ne màggal ko teg ko ci sunna nag ku ñëw fii ci kër sëñ tubaa da nga fekk na loolu waaye bu dutoon loolu lépp itam sëriñ am sa digganteeg moom àgg na foo xamante ne bii la neen lu mu woote lu jëmu ci liit da nga ànd moom wuy si ko ji kon ñëw nga ci guddi sa sallallahu alayhi wa sallam ñu an yan kàddu lañ ci eh, taatan fii ci kër gi ñu koy defee nga xam ne pàkk boo ko def barkeele na waaye ci pàkkub sëriñ Tuubaa nag yéen ngeen koy defee ba noppi nag den nag sëriñ Tuubaa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Mamadou Fadil ñu ngi leen di delloo nuyoo di nuyu bokki taalibe yi fi fekk yëpp di nuy di siyaare Sëriñ Amsatu Mbàkke mi di sàkko ci moom mu jotal ñu sunu nuyu ak suñu siyaare ci Cheikh Mamadou Muntaxa Mbàkke ñi nga xam ne mi ngi ci kër gi nga ñaan yàlla jàggal ko fi ci dolli gërëm mu yàgg taxawu magal gi ni ko wax nag ñu ñëw nañ fii tey fekk si suñu mag sunu xarit suñu lépp Sëriñ Amsatu suñu ko baaxoo defee at mu jot fii ci barab bi nga xam ne moom lay barabu Serigne Touba dëkk bi dëkku sëriñ Touba la kër yépp kër yi si Serigne la waaye barab bi ne leen mandargale kër sëriñ bi ci waajuram bu baax Cheikh Abdou Lahad Mbacké taxawaloon ko fi mu mel ne kon mooy kër Serigne Touba bi bi dëkk bi doon dëkkam ba noppi foo fu nu màggale ci dëkk bi rek ci guddi gi mel na ne defe ko kër Serigne Touba. waaye nag fii nga xam ne fii la ki ko nekkal di fanaan fanaan na màgg mel na kon mooy bara bi nga xam ne nag moo gën a màgg ci dëkk bi tey jii kon nag ñu am mbégte lool di ñëw jot fekk si sëriñ fii ci ni ko waxee moom ci ndigalul waajuram di sëriñam di ko ko yar Cheikh Saliou Mbacké diggante Cheikh Saliou gàmm itam ku ne xam ko xam na ko damay wax démb rek maa ngi koy wax man leen am na jamono yoo xam ne dëkk bi gàmmu penc mi ke sëñ Saliou ko daa def ndax booba daa def dëkk bi ke sëñ Saliou ke sëñ sëñ daa def guddi ñu dem fee waaye booba dëkk kër yooyu ñoo ko fi def sëñ Saliou fonk ko lool yàgg ko fonk lool fu ca booba danaa toog ci njabaan ngi fanaan ci ba suba fekk na ko ba tey kon bu ko tànnalee bis bii moom tànnal na ko bis bu nu gërëm loo si Abdoul Ahad mi waajur itam moo njëkk a taxawal fii ci penc sowu jawaa ji am mawlit wax ne daa def guddi gu jot altine jot na fi fanaanee jàng fii ci sowu jumaa ji la defoon mbaar mi ginnaaw bi mu defee mbaar yi mag ci biir kër gi la ko dugal ci kër gi moom xam aju koon ci gàmm sax waaye guddi gu guddi altine gu ne rek dafa daa def fii ci penc mi mooy ba ñuy gone daan fi ñëw di ko fekk si kon ñoom ñaan ñi ko seq ñëpp ñu fonkoon guddi gi la kon nag bu yàlla digg dimbalee ñu cërale ko ko jox ko ndigal mu ko defee fii ci barabam bii nga xam ne barabu Serigne Touba loolu ab cër bu rëy la ci moom kon da nga ko ci ndokkeel di ko ci ñaanal bu baax mu yàgg koo taxawee te li ko kilifaam amoon ci yaakaar ba dénk ko mu ji def lu koy njort loolu bu baax ñu koy ndokkeel bu baax a baax guddi gi nag noonu ko waxee laylatu mawlid nabi laylatu mahriya bi autorité taasumi guddi goo xam ne ci la sunu borom dàqe sikk sakk avant li bi juddu booba yëfi du fa joon ñëpp dafa jaxasoo kaaba ga lépp fa woon booba ay junni junni yàllaa fa woon sikk soose ci la dañ fitna ji nit ñi woon tam booba di xeexoon arab yi dañ daa xeex jamono ju ne juddu yonent bi saa saa moo ñu ci léebaay laylatu mahawir nabi laylatu mawlid nabi laylatu mawlid nabi laylatu mahawir nabi laylatu mahawir taxabi wa toxri si taxasumi guddi googu ci la sunu borom laabale doomu aadama yi ci bakkaar suñu waxaat ne ihyaa mawlid nabi yaxmel iyaal wa duyoor fiihi shifaun li sudoor li kulli xeetin yantami guddi gi ku koy màggal suñu boom dana la aar aar sa kër ba seytaan du fa mën a dugg wala doon na sa sa sab xol tam sunu baram dana ko saafara ba ràgg du ci dugg kon loolu am na solo waaye nag waaye bi ma waxoon léegi nag moom mooy mooy tax nga am loolu tax see moom bi sunnati màggal ko ca màggal gi nga koy màggal nga dëppale ko sunna

tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga war ko nga baax ndax yàlla ko njëkk a tagg wa innaka ala xuluqin azimin kon yooyu lañ koy màggale ak berne nag parce que ñu wax na fa kullu man anfaqa fii mawlidihi al-musarrafi maalan bi xayri sarfi walaw bi xadri dirham fa innahu kamaa xadara yawma udin wa sabar wa badrin wa nasar xayru waral mufahimin képp koo xam ne joxe nga ci dara ngir yàlla màggale ko guddi gi donte ab dërëm la nga jox ko ci ñuy jàng wala nga jox ko ay berne yu ñuy jàng da nga mel ne ku fekke woon xareb Hunayn ak Badar ñaari xare yooyu nga xam ne ko xam nga ne Badar ci la mel nag fekke nga teew nga ca xare ba ban am ndam te dawoo yool ba ko am kon nag guddi gi ku màgg la ci ci ci jullit yëpp nag ñor ko màggal suñu Xadim mi nga xam ne mooy suñu yaakaar lu mu la lu mu teel a màggal la assasin la ko tàmbalee màggal te ñëpp xam nañ ne njaarim bu ko daa màggal guddi gi moom bu jant soo ba ba kër muy jur ji fajar du toogati ba kër ma sàmba yi jàng dee baagante rek di dem ak dikk bu indee café dem duggaat indi ataaya dem duggaat indi meew indaat indi yi ñuy togg di jox leen di sotti nit ñi Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moo mooy jëriñam ji da ko daa toggloo ci guddi gi togg yu bare bare yoo xam ne ñu ngi bàggante rek kër Cheikh ak kër gu mag di indi ndab mboolem Cheikh si itam dañuy togg di indi nga xam ne daanaka njëriñam booba guddi gi moom kenn du togg ci berne ak ak yu ñuy naan noon la fanko noonu la ko daa dundale wax na ne guddi gi moom sëñ bi amoon na tàngooram waaye weeru gàmm weeru koor daaw ci tàng ndax fonk bi si ñaari guddi yi moom moo gis lu ëpp ci xasidaam ci ñoom lay tudd rabi ak ramadan ñoo ñooy ñaari weeram kon nag murid yëpp ko war a fonk murid yëpp ko war a fonk di ko màggal fonk naan ko màggal nga sax waaye ñu gën koo fonk gën ko màggal te xam ne doy na kaaraanga yi si ñun te lépp loo xam ne wóor na la sëñ Tuubaa moo ko dégle moo ko woote ah yooytu ma leen ne bii muy asasi woor ci nit ñi foo toll julli war na ci ñëw rawatina nag defe ko fii Touba waaye nag rafet ñu ci defe ko fii ci kër Sëñ Touba loolu moom leneen la kon nag ñu ciy ndokkeel sëñ bi bu baax a baax di ñaan yàlla ñu yàgg ko fekkee yàgg fee ñëw te li nga xam ne ku baaxee wax na ne mi ngi ci guddi gi ci ay may yàlla na dajeeg moom barke Sëriñ Touba te dal nañ ci suñu xel dal baax ndax nekk ci kër ki fi nekk suñu nekk ci kër ga di fa gàmmu sewet nga dégg xasida yi nga xam ne moom la jàng di ko jàngal muy dégg loolu dal na xel kon nag suñu xel sant nu baax ci moom mi sax ñu boolee ñu ci guddi gi baat mu jot ñu koy teewee ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum